kon mel na dara jiitu ko ci infaq ndax lépp lépp moom la war te lépp am na yéeneem am na pastéefam lépp am na yitteem ndax lépp lépp moom la war te am na yéeneem am na pastéefam lépp am na yitteem kon ginnaaw lépp moom la war nañu jiitale addiya ah lu ca waay mën nga xam ne sëñ Tuubaa teew mu teg ci loxoom nan bàyyi xel loolu bàyyi xel di joxe addiya ku mënul waxtu wu ne itam at mu jot waras na koo mën sa xel dal sëñ Tuubaa moo fi nekk li ngay def sëñ Tuubaa tax nga di ko def kon continuer sa xel dal sëñ Tuubaa moo fi nekk li ngay def sëñ Tuubaa tax nga di ko def kon continuer